bismil ilaahi werakaanu bamba njamee ngi diitu jow pakeem cëbal ba bismil ilaahi werakaanu bamba njamee ngi diitu jow pakeem cëbal ba ku lab ci géej moole di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jiiri gaay sangi njoor ma ku lab ci géej mooli di xeeñ sa ngoor ku dee ci jéeri gaaye sange njoor ma bamba géej mu ngi géñoo di jën yaa lu dee ci géej loola du nuurum tan yaa bamba di géej murid yeñoo di jën yaa lu dee ci géej loola du nuurum tan yaa murid du gis mu nakiir ak ji wa xabiir xam ko doy na nguura murit du gis mu nakiir ak nakiira ji wa xabiir xam ko doy na nguura njamee di mool xuus ci géeji bamba di wane yoon wa gaay pomba njamee di mool xuus ci géeji bamba di wane yoon wa gaay pomba ndax ku mënul ndox te taxaw fa tamba lii pake ñu fab sa yan ba xam gaaya seeni ruuj du faatoo seeni yaram du ràpp ñoo ko yaatoo xam gaaya seeni ruuj du faatoo seeni yaram du ràpp ñoo ko yaatu gëmul jàngal wala taquloo ba dem ca axyaa um kon nga te gaayu baax le leen te way leen dana waral si saaboroy leen bul koona ñi bind njiri raaf na bul koona ñi tay xam-xam daay na bul koona

mbàjj ba daanu na ci digg géej lu leen te ñëw nu xaw too ba daanu na ci digg géej ga ma sàmba keroog bam ni jirim fa kawlax ji jaanga ànd ak ga léppi falax wallaay keroog bam ni jirim fa kawlax ji jaanga ànd ak ga léppi falax ma marsiyaati say xanaa ma samba tabba fi daa roy roy lu say xi bamba yaa malakul mawti la siitu minto bi isni man yuxyi wala yamuutu